pôle centre 3FPT. lan mooy euh, teewaayu 3FPT tey fii ci centre bi. waaw tey moom 3FPT euh, dafa financer euh, jeunes yi nga xam ne yu bëggoon su formation de courte durée de 3 mois mm-hmm. ah, si mbirum embauche bovine si mbirum transformation des produits locaux. amooy transformation alimentaire euh, céréales comme fruits et légumes mais aussi si mbirum euh, formation en euh, embouche bovine embouche bovine transformation des produits euh, locaux ak aviculture plus quatrième formation bi nga xam ne sax moo nekk bureautique li ñuy wax internet Word Excel la Excel pour 104 apprenante yi nga xam ne fii lañ leen fekk si CFP Mame Diarra loolu moo taxoon tey ñu ñëwoon fii pour jox leen seen lijaasa parce que ku nekk suivi nga trois mois de formation accélérée pratique nga xam ne CFP bi euh, bu Proxaan moo ko exécuté de conseil avec le 3FPT. donc d' li ngeen fi gis d' après exposition xale yi apprenants yi yu góor ak yi jigéen est ce que seen xel dal na ci li nga xam ne moom mooy euh, doxum centre bi. effectivement parce que avant ñuy signer sa convention bi centre bi dañ ko yàgg accompagne lu dem si lu mel na comme si ay projet d'investissement lu mel na comme ay plan stratégique de développement daanaka relever ne plateau technique boobu ba pare ba mu xam ne am na doole ñuy soow indi convention de partenariat donc 3FPT noonu lay doxale looloo tax xale yi nga xam ne tey yi nga xam ne capacité na leen pendant trois mois ñu des suñu xel daal ma parce que euh, 3FPT balaa muy financé de lay day wóor ne formation bi nga xam ne moom nga bëgg a joxe xale yi soo leen formé ba pare dinañ leen insérer loolu la njëkk analyser étudier ko ba ma sottee si leen xam ne mën nañ si dem ba mu mën leen former lu toll si 104 personnes avec 16 million yi nga xam ne 3FPT moo ko fayal xale yi tout en trois mois mais mieux encore. xam nga léegi état du Sénégal léegi euh, su ñuy wax mbiram référentiel insertion ah dispositif boobu pôle emploi la donc looloo tax ma ne leen soo leen paree da leen di jébbal waa pôle emploi pôle emploi daf leen di jël jàppale leen si mbirum insertion bi parce que DER ma ngi fa ANPEJ ma ngi fa pour que ñu mën leen jàppale ñu mën a mettre en place leur propre unité de production d'ailleurs même jusqu'à mettre en place ay PME PMI looloo tax ak autonomisation des jeunes et des boobu moom la suñu DG ki ñuy wax Abi Seye di dox depuis que ba mu nekkee 3FPT fu nga xam ne xale moo ngi fa nga xam ne ba nga liggéey may un talibé un métier surtout si cadre bi nga xam ne moom la nekk suñu DG Abi dafay bëgg nga am métier nga mënal sa bopp demal sa bopp profession libérale loolu si la 3FPT di dox loolu tax ak tey ñu ñëw fii pour jox ak apprenante yi nga xam ne formé formé ne leen mm-hmm. ñu toll si téeméer ak ñeent nga xam ne 3FPT moo ko fay jàppale leen pour que gox-goxaan bi nga xam ne chef programme bi ñu nekk ñu mën am am seen liggéey dimbale seen bopp. macha allah kàddu yi leer na donc lan mooy sa kàddu yu mujj. sama kàddu yu mucc mujj mooy lan euh, pôle emploi parce que. Euh, mois de mars passé boo dëkk bi yëngatoo euh, gouvernement bi dafa mettre en place ces pôles emploi pour permettre xale yi nga xam ne amuñu liggéey amuñu xëy bëgg xam-xam bëgg financement ñu dem sa pôle emploi donc damay invité xale bi nga xam ne yaa ngi fi bëgg bëgg nga am sa liggéey demal si pôle emploi bi te na nga xam ne 3FPT yow la fi nekkal si mbirum formation